jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara tabaarakallaahu ñoo ngi ci centre euh, international bu ab di juuf ci euh, jam ñaajo di jéem a jàngale ak misaal benn ndaje moo xam ne am na diggante xale yi ak nun ndaje mi ñu tudde ko benn séminaire toll ci séminaire bi ci wàllu tànn tànn ñi nga xam ne ñoom lañu bëgg a sant li nu soxla ci pénc mi ñu waxoon ci bind yi su ne tànn dafa am solo alayhi salaatu wasalaam wane na ko alxuraan wone ko woneeti ko alxuraan wone ko waneeti ko wane ko ci Muusa alayhi salaam waaye wane ko ci Maryama waaye te ba tey ci principe bu tànn googu alxuraan dañul ba tey di ko def moo di sunu borom daa wax ci alxuraanul karim ci suratu Ali Imran inna allah stafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin loolu tam tànn la borom subhaanahu wa moo wax ne dafa tànn aadama tànn noox dafa tànn aadama tànn noox yàlla bi mu ñëwee kër aadama dafa fekk kenn fa baax muy aadama mu tànn ko jeunesse ñëpp mu bàyyi leen fa waaye ba mu ñëwee kër noox nit kenn fa baax muy noox noox jabar ja baaxut doom ja baaxut suñu borom ne la fu ñukk tànn ko moom dong kon gis nga principe bu tànn bu ñëwee santiment day dàqu moo tax yàlla doxalul foofu senti sentiment mu tànn aadama ca këram tànn nooxun ca këram waaye bu ñëw ci ali ibrahima ñëpp la tànn ñëpp la tànn ali ibrahima la wax imraan it ñëppam la tànn imraan ñëppam la tànn alal aalamiina kon tànn ngu noonu moo tax bi nu tollee ci eh, seminaire bi ba gaa yi indi seen atelier yi wax ñu ci liñ ñu war liñ ñu wax lépp kon war nañoo tànn ñi nga xam ne ñoo koy taxawe au lieu ñu naan diw ak diw ak diw déedéet sallallahu alayhi wa sallam moom it ci njàngaleem wan nañu ne moom ci boppam dañ koo tànn mu ne inna la stafa kinaana min waladi ismail wastafa qurayshan min kinaana wastafa min qurayshin bani asim wastafa nii min bani asim allahu akbar sallallahu alayhi wa yàlla daa fekk ci araab yi giir yaa ngi bare bare bari mu fekk ci giir gu tudd kinaana mu tànn leen mu tànn leen kinaana moomu nag ñi ngi bokk ci doomi ismail alayhi salaam nee mu fekk kinaana moomu nag mu tànn Quraysh ci seen biir mu tànn Quraysh seen biir Quraysh moomu mu tànn Bani Hashim ci seen biir mu ne moom nag mu tànne ko ci biir Bani Hashim ne moom mu tànne ci biir Bani Hashim comme tànneef la bu génn ci biir tànneef jóge ci biir tànneef waaw moo tax tànn am solo mbokk yi bu ngeen dégloo baax a baax dangeen di gis nekkoon tànn munta ñàkk lu ko mooy nga defloo nit lu munta def walla mu jëngu bëgg koo def walla mu koy defe nu dul noonu bariwaana yu dox ci pénc mi léeg-léeg looloo koy waral association la daayira la parti la tànn jot ñu bëgg a defloo nit ñu gis na kii ancien la ci parti bi waaye li ñuy def lu mënu ko ñu bëgg ko jox ndaxte moo fi yàgg te loolu moo mer la woon iblis ba mu gedd waaw dem taxaw fële te yàlla moom du fekk li muy def lu ku ko man mu koy def loo ku ko mënut mukk yàlla day tànn ki mën a def def loo ko waaye du fekk loo xam ni diw da koo man diwa ko ko dàq ñu bàyyi ki ko dàq di ko def loo ki ko man loolu ci penc mi na ci xale yi bàyyi xel rawatina seminarist yi ñu nangu tànn borom bi subhaanahu wa taala bi muy tànn bi yonent bi di tànn euh, Seydina Ali ca Xaybar ñaata nit ñoo ko wóoroon ñaata nit ñoo ko wóoroon waaye li muy sedd Seydina Ali ca Xaybar mbooloo mi ku ko fi dàq amu fi donte nit ñi mën nañ ko waaye kan moo ko ko fa dàq Seydina Ali moo ko fa dàq moo ko ko fa daq mu daal di koy tànn sunu borom subhaanahu wa kon bi muy tànn Muusaa it la kon penc mi parti politique yi association yi daayira yi lu ci nekk ci ko man nañ ko ko jox waaye duñu wax ne diw fi gën a yàgg diw mën na fee gën a yàgg mën na pi waaye li ñuy def lu nii mënu ko te itam su fekkee ak pal moo tax mu ñëw léeg-léeg soo falee keneen te ko mu opposé ko di téq ay tànkam rek ba mbooloo ma xëy yàqu fu mu toog di wax dana fa wax loo xam ne dana yàq derub kii bu ko kenn digloo mbaa rek bunt la di ubbeeku ñoo moom ñoo moom ba baa ñuy folli ki ko fi dàq fal ki ko man mbaa ko tële mu daal di yàqu mu daal di yàqu moo tax foo fekk parti boo xam ne duñ dem congrès loolu moo leen di dal parti boo dee xam duñ dem congrès wala buñ demee congrès du am débat loolu moo leen di dal kon mbokk yi tànn nga noonu euh, tabaarakallahu léegi nag mbooloo mi ñëw nañ dafa am yoo xam ne ci ñim nekk la ñuy tànn duñ wax nañ tànn diw ak diw ak diw déedéet dañuy seet rekk yi ñuy bëgg a jàngale ci kum nekk ñu tànn la waaw nit koo xam ne ku ko waajal ci indibaat yi mu dem nit koo xam ne ku ko waajal ci ibdaa yi mu dem nit koo xam ne ku ko waajal ci jihaad yi mu dem yooyu mbokk yi mooy yi nga xam ne mooy nekk ci ndaw yi ñuy tànn ñu mën leen a tànn ndax expérience yeeg force yeeg doole yi yemuñu tolloowuñu kii am na lu man kee am na lu man kii am na lu ko dàq ba dema ca terrain ba fekk fa ñoom saajo Mané ñuy fubal waaw entraîneur bi mooy xam latéraux yi ñan la war a doon milieu de terrain attaquant yi nangam nangam ba ca góor ku ci nekk dañ lay tànn ci jàpp ne poste bañ lay teg mën nga caa nekk loolu mooy tànn loolu mooy tànn am na yoo xam ne yu baree baree bare la mbokk yoo xam ne mi ngi ci pénc mi nit ñi yor ko suñ leen ko defloo woon fi ne ñun suñu ndawi réew ndawi réew maanaam Sénégal ndaw yi ni ci pénc mi daanaka man nga ne àdduna si ñoo ci gën a yeewu ay ndaw kaar-kaar gën cee sawar ay ndaw buñ leen nelawloo am na yu baree bare bari yoo xam ne ndaw yi mën nañu ko waaye léeg-léeg duñ leen ko buñ leen ko def loowut duñ ko mën a def waaw ndaw yooyu mbokk yi lañu bëgg ñu xool ñett yi nga xam ne moom laa dul lim léegi koo ci xam ne buñ la waajalee ci loolu nga mën a dem ndaw yépp bàyyi xel ci ne kon man danaa déglu jataay bi xool yooyu nga xam ne ci lañu bëgg tànn ndaw ñi ñu jéem cee taxaw pour man ko ba ci jiitu ci mbokk ci mbokk ci yooyu mooy ñu waajal ndaw ñi ci al indibaat yi yi mooy melo wi gën kawe ci ñetti melo yi ma waxoon sànq te ndaw yi war cee wu ndaw yi war taxaw pour ñu mën leen a tànn waaw ñu mën leen a tànn mooy euh, lu jëm ci wàllu soppi pénc mi bu indibaat yi amut du sotti lan mooy indibaat yi mooy ndaw loo xam ne buñ na ko defal mu def buñ na ko bàyyil mu bàyyi mooy ndaw lu dégg ndigal ndaw lu dégg ndigal gis nga sunu mag yi réew mi yàlla na yàlla fayal ñu leen réussir nañu ci wàllu googu lu am solo mooy fexe ba taalibe dégg ndigalu sëriñam léegi sax ci vingtième siècle wala jamono yi le politicien yi xam ne dégg ndigal arrangé wu leen ñoom ñëpp am na nag ñoom ci arrangé waaye am na ñooñu arrangé wu leen ba tax na ñoom dañuy fexe ba taalibe bi wàññi dégg ndigalam daal di koy doxal ci logique te taalibe bu gëm logique léeg-léeg mu yàq sa ndigal kon ndaw li nga xam ne dafa bëgg ñu tànn ko li muy njëkk a def mooy nangoo topp ndigal jóg leen ñu jóg toog leen ñu toog dem leen ñu dem wax leen ñu wax noppi leen ñu noppi gis nga bu la yàlla yóbboo màkka ba nga gis ujaaju asiatik yi dafa naan lu ñu ko wax professeur chinois yeeg japonais yi seen ustaas yi ustaas afrique yi dañ leen di ñee rawatina ustaas yi sénégal yi ndax ñooñu seen ustaas yi bu ñu ñëwee seen ujaaj yi dañuy def in indibaat yi mooy loo wax ujaaj bi loolu lay def ñun nag suñuy ujaaj da ngay wax ujaaj bi nangam mu bëgg laa wan ne li ngay wax ni jàng na ko wala dégg na ko mbaa xam na ko wala wala wala wala werante yi tàmbali am sa diggante ak ujaaj yi doo def luñ xam ñoom it duñ def luñ xam ala kulli xaal tomb bu njëkk baa ngi noonu ci ndaw li bëgguñu ñu tànn ko na am lu ñu tuddee indibaat yi su amut mu doon ku ca neex waajal ñu waajal ko ca ba mu mën caa bokk ca ñooñee gis nga force yi ñu am xalaat yi ñu am physique yi ñu am li feeg teguñ ko ci kaw topp ndigal ñu jëf la ñu jëfe ko ni ñu ko war a jëfe day tasaaroo ci mbedd mi rek waaw fu nekk aw saan jëm fa bu ñaar bi muy ibdaa yi ibdaay mooy ñu ñu tànn ndaw yoo xam ne ay cré ay créateur lañu defe nanu lañ ko waxee ay créateur lañu ndaw lu mën a xalaat lu samp dara maanaam ndaw lu mën a xalaat lu jural ndaw ñi métier walla am-am waaw te ndaw mu bañ a doon ndaw luy wéeru ci baayam rek ak yaayam baay may ma nàngam yaay may ma nangam déedéet ndaw li day doon koo xam ne kii euh, day posé candidat wu fas yéene bokk ñi ñi tànn waaye mu doon koo xam ne kii dana mën a def ibda ibda mooy nit koo xam ne kii am na defal sam réew defe naa ne suñ ci suñ ci limoon tey lu mel ni kii sponsorisé sama émission bi ci fajar gi muy C3S c 3 ndaw loo xam ne xalaat na ba créer barab bopp daf cay jaay ay aluminium kerye ba xalaat loo xam ne mbirum defar pneu luñ koy defaree loolu yeneen ndaw ñëw xalaat leneen ñeneen ndaw ñëw xalaat leneen loolu lañ tuddee ibdaa yi dafa ñu roog nag baatu bidaa dafa ñu roog moom waaw tabarkal waaye ndaw ñi nga xam ne tàggat nañ leen ci wàllu googu ba ñu man ko ibdaa yi te mooy fexee samp dara fexe samp dara loola muy samp mu liggéey ca pénc mi liggéey ci foofu it bépp ministère boo xam ne bii dangaa gis koo xam ne mi ngi jéem a def ibdaa yi mi ngi jéem a créer dara boo ko gàllankooree da nga am bàkkaaru société bàkkaaru pénc waaw ndaw loo xam ne dafa bëgg def ibdaa yi wala ibdaa bu ñetteel bi ci ñett yooyu ma doon wax mooy jihaad yi luy jihaad yi mooy ndaw loo xam dañ koy tàggat ba yaramam wi tayaloon sawar ñu tàggat ko ba xelam mi nëxoon teey ñu tàggat ko ba ay nelawam néew ñu tàggat ko ba péncam jag jaral na ko jox as temps as tuut ay xalaatam loolu lu amam solo la nanu dem ci alquranul karim borom bi subhanahu taala mi ngi junj lu mel noonu ci laay ju am solo wala ay laay yu am solo ca suuratu tawba borom bi daa wax ne inna allah stara min al mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqaatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waadan alayhi xaqa fi tawra wal injil wal qur'an wa man awfaa bi ahdihi min allah fastabshiruu bi bay'ikum alladi baaya'tum bi wa dalika huwa al fawzu al azim ma nga ca tawba aaya fukk ak benn borom bi daa wax ne jënd na ci mu'minuuna yi seen bakkan moomatuñu seen bakkan moomatuñu seen alal seen bakkan léegi yàllaa ko moom seen alal léegi yàllaa ko moom allahu akbar seen bakkan jaay nañ ko yàlla seen alal jaay nañ ko yàlla mu yàlla loo leen di faye ku joxe bakkan joxe alal loo koy faye mu ne bi anna lahumul janna aljanna laa leen di faye ginnaaw mënuñoo ñàkk jóg àdduna ñu denc leen ci biir suuf la ma leen di fay mooy aljanna waaw ñoom lu ñu la defal yu xaaciloona fi sabilillah waaw dañoo kër kër yi dañoo xeex ci yoonu yàlla lan mooy yoonu yàlla mooy pinc bi jag lan mooy yoonu yàlla mooy pénc bi jag rey jóg fi waaw agression yi jóg fi waaw may gi jóg fi xordab bi yi jóg fi pëcc xoogeeg yàqante gi jóg fi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waaw bu àggee ci seen bakkan des ca yàlla mu ne seen bakkan des ca ndax yàlla jaral na leen ko ne ci pénc mi rekk ndax bëgg pénc mi jag ndeysaan la ma sama bàjjan daan wax ndeysaan meer soxna Jóob yaayi Maodo yal na ko yàlla yërëm mu ne ma dama am laaj ma lay laaj mën ne ko waaw mu ne ma kañ ngay nelaw ndeysaan waxoon naa ko ci bind weesu mu ne ma kañ nelaw mu ne ko bàjjan àdduna amuti nelaw mu ne ma ah te nit ñi di ko def <laughs> ndeysaan mu ne ma ah te nit ñi di ko def mën ne ko nit ñi nelawuñ de mu ne ma li ñuy def nun tudd mën ne ko àdduna ñi fi nekk dañuy entraîné nelaw yaa ngi biir xabru chet tit sama sama bàjjan bàyyi ndékki la ma ne ko nelaw yaa ngi biir bàmmeel ñi ci kaw suuf ñëpp dañu entraîné fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waadan ali xaqa yàlla mu ne loolu signé naa ko waadan alayhi xaqa signé naa ko waaw foo ko signé fi tawra document bi tudd tawra falaa ko signé document bi tudd injil signé naa ko fa document bi tudd alquran signé naa ko fa ah waaw yàlla mu ne maa wax lii waadan ali xaqa fi tawra wal injil wal quran ñetti barab yëpp sunu borom ne signé na ko fa mu yéen kan ngeen yaakaar ne moo dàq sàmm kóllëre yàlla kan ngeen ko yaakaare ñun ñëpp ñu ne yow dong lañ ko yaakaar yaa fi dàq sàmm kóllëre mu ne fastabsiru kon nag bëgg leen fastabsiru bi bay'ikum allati baaya'tum joxante loo geeg jaayante gi ngeen jaayanteeg moom kon bég leen bég leen baaya'tum bi wa dalika huwa alfawzu alazim loolu nag mooy victoire bu mag bi mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot séminaire bi foofu la toll ak nun tabaarakallah li ci des kon mooy bu ñu yàlla mayee ñu jël suñu pause bu yi nga xam ne mooy leen de samedi dimanche bu nu dellusee daal di ñëw nag ci yeneen ndaje yu am solo te mooy ginnaaw séminaire bi ginnaaw jataay bi ginnaaw culture bi léegi day am nag stage waaw day am stage ndaw yi ñëw ci mbooloo mi mbooloo mi defal leen stage wala ndaw yi ñëw ma ma defal leen stage <laughs> waaw noonu lay noonu lay tudd incha allah stage bi nag yàlla nu ko fekk jàmm mooy bu ñu dégloo waxtaanu fajaru vendredi ak samedi dimanche te lu pause la xaw ma pause café la tudd xaw ma pause euh, muroog meew bu fi imaam Ablaye Ndaw jege woon xam naa mu tontu ñu ci suñu accès ci yooyu daal dina am yenn yoo xam ne danañ ci defal ndaw ñi stage danañ ci defal ndaw ñi stage ndax lu waaye mën a mën a mën a jàng buñ la jàngalut nooy jàngalee doo mën a jàngale laaj ko jàngalekat yi moo tax sëfoor ci nga xam ne it dañ leen jàngal dawal rek bàyyi leen ñuy dawal bokkut ak sëfoor si ñu jàngal dawal ba noppi defal leen formation wu dawal ñaar yu du bokk ñaar yu duñu bokk moo tax ndaw li bu fekkee jàng na ba mën a jàng dafa am stage bu ñu koy defal stage boobu nag buñ ci toppandoo alquran sunu borom moom la defaloon aadama alayhi salaam wa yaa mu ne ko labbayka mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna àndal yaag sa jabar yi ngeen dugg aljanna defee stage ñu ñoom ñaar ñu dugg aljanna def fa seen stage bu rëy ba bu ñu génnee tabaarakallahu wàcc ci kaw suuf tàmbali seen liggéey moo tax ndaw ñi bu ñu agsee foofu fokk ñu defal leen stage suñu paree nag ñoom ñëpp ñu war mën a dugg nag ci terrain bi eh, tabarakallahu jariñ seenu pénc jariñ seen réew jariñ seen bopp ndax waxtaan kat dañuy wax ne nit warul di wax lu ma réew mi defal bu ci yem képp danga naan lan laa defal réew mi fexeel ba defal réew mi dara sunu mbokkum daara Cheikh Ahmad bi tey ca rajo Dunya nee na nit bu ñëwee ci péncam daa war a fexe ba kay ba ñuy bind tur yi mu dem bind ca kaye baa nga tudd kuraasul taarix mu dem bind ca turam ndax ndax bu fi génnee àdduna it wa zikruka ba'dal mawti umrun thani jërë ngeen jëf ci ànd beeg si Sud FM seen rajo te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di C3S C3S nekk ci croisement de di defar ay pneu ba ak si rek taxaw ñu defaral si ñeenti pneu yëpp tabarakallahu ci diir bu gàtta gàtta gàtt yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy post dara nga naan doon coxtaan moo seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu